asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci turu sëñ Falil Fall yooyu suñu mbir mi daal ma ngi nuyu njaboot suñu mbir mi daal gépp di leen jox ay cant ak ngërëm bu baax a baax ci taxawaay baati ndigal yi jàll yëpp te ngeen jëmee ko ni ko sëñ bëggee hmm. boobu ak cant yi nag. ni ni ni ko baax ni ni ko baaxoo waxe rek di jiital rakam yu tedd yi mu bokkal suñu mëneen wàll naa ne nooy moom mooy ñoom di ko lawal ba ci mboolem taay bi yëpp nag mboolem jëfal suñu mëneen wàll gi rek muy baatum ndigal boo xam ne ah, fàtte wu leen ko doon ko fàtte ba faw muy ndigal yi mboolem ndigal yi ko suñu tuwaa taay bi ci fa yëpp mu ngi mu ngeen denc seen biir xol waaye dafa tolloog nag baat bu ci nekk ndigal lu ci nekk boo waxtu mu jotee rek faaw mu soññ ci boppam soññee ci ne yëpp a ngi seen xolum ku ne xam ne léegi bi dën ma fàttali ko mu liggéey Tabaski yi mu bëgg nag na ngeen ko daan defee rek na ñëpp maase am ci Pastef wér a wér lépp mu doom day jëm kanam Pastef yi na dolliku jàpp ni na doole ko na lépp doole ko rek hmm, nun ko fas yéene rek suñu boom daan far ci noonu kon nan fas yéene baat boobu mu jëfe ko noo xam ne mu ko ndax dara yi sëñ bi dellu gannaaw lépp bëgg na nu yaatal ko lool loolu la ko jëriñu baax joxoon ñu Seex Murtala ñaan seen gërëm muy liggéey dool kii am na ci bataaxel boo xam ba mu ko ba mu jëlee ci xel koom ndax mu ko joxoon ma sotti ma sotti ci ma sotti ko téeméer yoon waaye sëñ Iblis Fall moom sëñ Mourtala moom it ba taxul moom moom la ci njëkk yónnee ndax way jur waa ko bindoon bataaxel bi yaatu na lool ci mur yi mu soññi lëg yu tabaski nag nañ ko daan defee rek ndax fi ñu ci bare bari woon ngeen leen aw yoon ndax kër gii di gis moo dem kenn jógee fi di laaj fenn xarum tabaski ñëpp mokkal nañ ci kenn ku ko yaa ko yaa ko indi sa bopp ca jogo gi bu mag a mag kenn ku ne sam xar lu bind sa tur nga joxe la ko indi loolu kenn ci sa ca boroot yi sax ni maa sos yóbbu liggéey bi loolu lépp so sooy ngeen ñu bare ci mur yi ñoo xam ñu bare ñoo ñoo ñoo leen ci roy roy nag ak rombul mooy yoon murit boo gisee ab sawaan ah, rombal rek boo gisee aw yiw royal waaye bu nga xam ne lii moom ku leen ci roy ku nekk da am gërëmul ko kan sa kanam ndax laaj dose kii metti na lool te lépp leen suñ mu noppal ah, ndimbal suñ tuwaay ci mbër yi doxkat yi yenukat yi waxkat yi jëfkat yi wàññikat yi mu daal moom ñi fa noppal rek kon nag mm, laaj tabaski moom mën nañ seen noppal sëñ bi te muur bu la noppal sëñ bi bu nekk ëpp noonu ëpp la mu raay te bu am bu ñu amum xar rek nag yem ca la nga xam fawal def ko ci gaal gi taxaw di dem soo amee am xar andil boo amul xar la nga xam fawal jox bi rek. mu naan bokk na ci gàcce koo xam ne moom yaakaar mi Cheikh Fall nekk mooy yor menn xar rek rey ko ci biir këram jëfandikoo ko loolu moom ku xam gàcce du ko bu dee bu bu dee menn Fall bi rek boo defee muy ay junni del si del si yow kon yéen jëw sëñ Modou Fall gii yéen moom kaddu yii sëñ Fall jëw sëñ Modou mu ñaan suñu boom yàggal dundam te baax yi mu àndal sëñ sunyi lagi bin dan lagi, lengen jaga moom la besi ngeen mau yi rup rup des nii ñoom mokk na ruuf ruuf ruuf ci yéen kenn ku lan nu di déglu bis bii sunyi bis bi soññe ndax bëgg mu gën a jege rek ci ta taxawee gi taxawee gi gàtt yi moo war sëñ bi ne ne ba ngeen di ko soññe dama kon kon bu nu waree ba suba mu ko ma kenn ku ne. li sañ bëgg moom yaa ngi ko denc si biir xol rek la nga cee man defoo ko ba denc la nga cee moom lu yaa ngi koy jéem noonu la suñ bëggee baatu ndéel bi kon suñ baa ñaan suñu borom daa ji ba juróom seet ji maam ja daa ji maam bi jàpp na ci ñun lool kenn ku ne na ko bëggee sa xol suñ baa ñaan suñu borom defal la ko noonu ne noo ko bëggee rek mooy kon baatum ndigal maa waaw mooy tàmbalee ci rakam yi nga xam ni wax doyoon na jëloon jëloon mu expliqué noonu di ci teg njaboot rek góor ak jigéen maa ngi ndaw ñëpp bokk liggéey bi ku bëgg ku nekk rek suñu borom dana baax yow ba nga mën kon man bëgg rek nu ci war nan bëgg nan ko bëgg rek te sabablu ko kon daan ko may ni ko bëggee muy ñaanal jooju suñu tubaab yi di njëglaay mur yëpp c'est mburum ndax ñaajur maam Cheikh Fall ji di Cheikh Fall Fall suñu sax jëmm jëmm Cheikh Fall ji suñu boom guddal seen dolli seen fan yi te boole nu jox wér ak maa taal ak jàmm ci maa ñaan suñu boom loolu yàlla ko nangoo ñaan gi ñun ñun muy noo maase di ko ñaan la yàgg ak wér ak mën nu itam yàlla na suñu nangu suñu ñaan yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ku jot kàddu yi jot li ko rek ba mu yaatu lool yéen ko ci rajo yi waaye lu booba wax na ci téléphone bi tam ni jot ci ndax moo gën a yaatu rajo bi sax ñu def.